والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen masawu coono yi gannaaw bi loolu nag ñu bëgg a dugg ak yéen ci waxtaanu gi yéen ci alquraanu karim ak i kiimaanam muy kilifa gii nga xam ne moom lañ jàkkaar lool muy ñu di ko wax Serigne Mbacke Sall mu doon mag moo xam ne léppam di alxuraanul karim mu toll ci juróom-ñett fukki at ak ñaar bindu ab kaamilub alxuraan ci diirub ñetti weer tey nag waa C3S seet si ko ñu doon ubbi kàddu gi rek ñu jox sëriñ bi bismillahi rahmaani rahim waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di delloo nuyoo te di leen dalal te di leen yaatal ci sunu jëmm ak sunu barab bi ñu leen fekk te ci mbégte lool ak ak bu baax a baax ñu ngi sant sunu borom bu baax a baax a baax sant suñ tubaab yi ñu ci jotale te gën a ñaan sunu cofeel ci alxuraan di gën di dolleeku sunu yëngu ci alxuraan gën di dolleeku. seetu suturu si alxuraan di gën a yokk si bañ man koo yóbbu fañ ko xalaate jëme ñu mën fa àgg ak moom ah, day dafa tollook nag mm, dañ dañ koy tënk ci jaar-jaar bi ak bëgg gi jaar-jaar bi mooy sama waajur wu nga xam ne it moom jur mu góor ah bi mu ñëwee ci suñ Tuubaa suñ Tuubaa dafa jël loxoom teg ci loxol sëñ Masàmba boole koog moom mu mu mu mu nekk wasilam diggante moom sëñ Tuubaa moom it dafa sampoon daara li jaar ci moom ci alxuraan bëri na lool dégg naa nee nañ maanaam al lim ci mokkal yaakaar naa ne maanaam lim lim di yërëb lim koy tari moo gën a bari di yërëb li muy tari alxuraan kon bu bu ñëwee ba fii ñun di nam na bi ci alxuraan loolu dana ko fi fekk danoo war loolu mooy mooy tànk yi ñun nag ñu bëgg ku ñu ci jàppale ba nga xam ni maanaam alxuraan ji danañ ko teral danañ ko dundal danañ ko yokk waaw mbind mii nag bi ma koy mbind it am na lu suma xel daaj ndax mas na maa bind ab kaamil yot ko suñ fàllu fii ci ndindi bi mu ko la ma wax nga wax xanaa daaw jànge ndànk ma ne ko ah, de laa daan jànge suñ Moodu Afis Mbàkke bu nekku fi waaye doomam a ngi fi mu suñ Moodu Afis boobu moo nekkoon bëkk ne bi mu ne ko ah suñ bi loolu yéeme na di mu ko mbind mee ma ko wax <laughs> yëkkati fa paquet ab kayit ak weccet jox ma ne ma nag bu ko bàyyi xam naa diggante boobu na yàlla tënk ma ba ñëw ci jamono jii mu mu ma di ko bindaat dafa mel ni kaamilab sëñ Fàllu boobu ma ba mu ne bu ko bàyyi dafa mel ni loola moom ma soñ soññaat mu bindaat kaamil bii. ren laa ko bind bii moom ci mm, sambiye bii jàll ba ba jàll bi ñu tegee woon xeeru jumaa jooji ci bi ca dëkk ba keroog bi ko tegee keroog laa tàmbali kaamil bi mu mu tombeek baraxlu koor. yi ma àggal waaw ñetti weer yi daal ci laa bind kaamil bi bi kay moo jàll ñetti weer yi nga xam ne ma léeg ma gis ci kay ma neexul ma follat ko waaye mbind meeg bi yàq maas bi moom ñetti weer lépp at yi booba maa ngi bi ma bind booba maa ngi ci juróom fukk ak benn ren dugg juróom-ñett fukk euh, euh, kaamil bi bi ma ko bindee ba àggal sama doom yi ki yor daara ji dafa indi kaamil bi mu bind ci loxoom mu mu nekk kéemaan lool man ko indi nga kaamil sama am bindanub kaamil waaw kaamil booba bi may ñëw bi ma ñëwee bi ci yoon bi sama xel dañ dama koo noonu am moo ma gën a rafetub kaamil fii man de koo xam ne kii sa mokkale fi da nga mokkal bind loolu daal mooy sama sas ci ñoom waaw da nga mokkal da nga bind te man nag ko képp koo xam ne kii loolu egg ngeen ci yéen ñi yéen koy taxawee yàlla sere na mu ngi mel ni man ngeen koy defal deful leen ko kenn ndax alxuraan nu mu gën a nu mu gën a yaatoo rek moom gën ci nun ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. anta bi ni'mati rabbika bi majnun